برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام Yes. doomu Cheikh Islam bàyyi Afiba Niass moo gën a àddina mos a mel ne. de. mos a nekk ci àddina bi àddina ko rëbb. àddina dañ koo rëbb. te bàyyi dafa ñëw pour kenn ku ne ni mu ñëwee mbaa jox laa ko yàlla rocc ci dangar li mu rëbb bi jàll li mu rëbbul dem des li mu rëbbul xam nga may lan lii ma xaqatu insaan yi lii mooy insaanu kaamil kooku ko fekk mooy Cheikh ko fekk mooy Cheikh Tidiane insaan kawaati insaan insaanu kaamil foo ko fekk ma ne mooy Cheikh Tidiane dama nekk benn waaye mu ne siru ruu xaqulu xalbu nafsu kon gis na yaram ma ne ko yow yow yow kon xam-xamul yàqu yow da ngaa juum ne nga xaqalu muy buum fii ko nga di xaqalu muy buum xaqalu ci boppam muy buum mooy li yeew xam nga ne yaram kay mooy xaqalu mooy yeew lépp ci biir yow bilaay mau yow gaa yëpp mën a yeew bés boo defee ba kenn rëcc nga ñàkk bu dee nga rëccee nga tëx boo ko yéew ba mu rëcc nga tëx su biis rëcc rëccee nga gumb su xel rëccee nga lungu bu taa bu dox rëccee nga bu rëccee nga moom bi kon ba kii la am ba kii Cheikh Yan téel gars bu baax di di baax a baax a maa ngi koy daal maa ngi daal ak sëriñ bi ak sëriñ Axibu Axibu Ñas doomu Cheikhul Islam ndeysaan naa léegi ma ne ne ku tedd jël ko ci ku tedd jëlee ko ci tedd xam nga ne Cheikh Ibrahim maam Alaaji maam maam Alaaji Ablaye na ay bàyyi ñu tedd na te moom fa la génnee kon dama ko tëdd génn àddina tey waaye nag àddina bi waxee la rek ñun waxee la rek ñun waaye doo génn àddina mukk xaajane bi génne ko ba yàgg dama bàyyi séew ñu adduna man xóolatun la yàgg yooyu sama xaajane ko rëmsu lépp fa nañ ko bàyyi kon nañ gën a àddina bi fekk ñu ci biir àddina bi da ngay gën a àddina bi ci àddina bi ngay gën a

la xolam na sa avancé bu si am la waa ay ma xam it moo la ci moom. kon suñu àq bi ñu lay ndokkeel xam nañ yaa ngi àjjana. waaw ñun du la ñaanal yàlla yàlla dugal àjjana wax nag ci waxul rek. mais xam nañ ne ne dundam àjjana la deexam àjjana la. soo ma nga incarné loolu yow loo ci xam yéen a ngi xamul xëy na man eh kaay ma jox la benn addis rek yéen tuuti ma ko woon démb man xaa lay day la yéen tamit képp ku daal la daxal ne dugal ajana xanaa xanaa si at boo na lay day la boo ngoo donc yéen nga ajana nangul loolu ah yàlla war a yónni sama nekk ñu ku ñu ca benn ma ñu ca ñaata fukk fukk téeméer téeméer bi ne xanaa xanaa moom du si dana sax fa ne lépp du ne yow xanaa kon kii mi ngaa jëlee ba tey mana ngay sëñ akay bu ñas doomu cheikh islam yang ada ajana maa lay ñee ñee la lool fi la nekk xam nga ma ñee ñee ñee nag maa may futur ci xala ko yow bëgg am am mi ay ba ba te bëgg a dem ñu ñëpp bëgg a ajana dëkk bu gaaw de te ajana moo tax al foofu aja bi mu neexee doomu aadama ragal dee te bugg aja te bala nga aja foog nga dee nag kay waaye nag ndeysaan nekk doo xam ne dee boo xam ne mooy dee dëgg dëgg bii dee du dee xam ruud ruud dafa yàlla a jur nga bëri ñëw ñu si kër moytu la moytu la waaw bu ñu waxee nga dem ñu ne def la ñëwaat loolu mooy xam ne xamoon na yàlla bi rek boo demee nii nga mel mooy kon sëñ Axibu ñu ngay daal tarifa bi nga xam ne mooy kër Cheikh Ibrahim Mouhamad al mahin Niass Ibrahim ñu ngay daal sa soppee sa mag sa rak pardo sa rak sa xari sa do mo nek sa mo bay ñu ngi koy bax di koy daal Cheikh Cheikh yani imam akbar sisi di koy daal Mouhamad al Mahi Cissé Ali xaadimul nu mu tudd astafurlah bi sa xarakati ñu ne koy jaar en tant que imaamul akbar imaamul ratib mi de Cheikh Ibrahim ñu ngi koy jaar mboolem ku bàyyi jot tur ñoom mun xam ne ñes su sax bi baax boobu di ko jaar mboolem doomu bàyyi yàpp waaye doyut

man de dinaa rox nañu ndax rox yi balaa la koy indi bët bi pare bët bi pare taxul ngeen ñaari melo mooy ñëw bay da nga na am naqar ci na am bànneex na nga am naqar te bala ñaar fa nekk yow yëpp bànneex ak bànneex bi nga du kon ngi def la ak ñaaw yi ngi def bi balaa lii rogo di am rogo du mën a mukk julli moo tax naqar foo mu am bànneex foog mu am te ñun am nañ naqaar waaye am nañ am nañ naqaar koo xam ne na ci ñoom génn na ci ñoom te ñëwaat ah kay day ñëwaat musu génn koo xam ku xam alam bi nu mu tëddee rek xam ne musu génn àdduna àdduna bi seet la bi laa wax nag moo tax taalibe Tijaan wér na wér moo dem ma wér billahi billahi ne woo caat ndege maa ngi hoo nit ñi ne ne nekk tijaan la lay wonde laa war ne sax fi nii lay war nekkan tijaan te yow yëpp nañ bàyyi gàcce yi saay saay yi ci biir yoo rek tari tariqa boo xam ne avance bi laa ngay wax jàng faatul kitaab di Cheikh Faar sar ala nabi xëy na laa ngeen bidaa ma ne ko ma yaay kan alma tuddee bida laa yaay ak bida asafara ak bida sata al nit ak bida man xaw yar lii képp ko daan bida la xamul yi xamul daa ñooy naqari li ko seetaan sos ko li xam ne gaa yi leen istifaar ak lépp gaa yi ñëpp ko loolu yàgg naasol loolu la gaa yi wax naas ñëpp ko waaw loolu قال يا واني في تسكت يان جون تكفى استغفر الله سبحان لا اله الا هو غنان كون كي دغبا بس نيب كو بوك دير سنغال نيب كو بوك داول غيم كيب دو سنغال سنغال تي بوك مي بو تباخي في بن باتما تا مول ديكل ني غي ديف كون با دغي لا بيس yes كون راك نيو ديباتما بي ني نيم نيو بوك ديباتما بي تي واي كي ام ديكل نك مو تباتما نيف سوف يلاه ديكو bari Fatima fi la bëgg suuf fi la fekk béton fi la fekk ndox fi la fekk am wala lu ko raadu ñu lii nii ci kaw benn fi la fekk ko waaye nag ko moom moo compensé ba man nag nga ñëw dugg yow. Cheikh Ndangam noonu la mel. fekk na istigfaar fekk na ay laaj yu baax mu compensé maanaam lépp rek naan am na imam ñu ngi sant yàlla du nuyu ñëpp doy dokkeel dikk nañ yàlla bu baax dégg naa sëriñ bi ñu ko war a denc dégg naa ñu ko war a denc ajuma bi ñëw incha allah ajuma bi ñëw lañ koy denc ndeysaan waxkat yi dañuy waxati ah. bu dagaan bu daganaa ñu leeral da ngay dangay ñun bu dee premier fan fii la ngay dugal deuxième jour fii troisième jour fii bu yàggee da nga dugal ci xaw fan xam nañ ko de waaye du bii de ñun premier jour mooy jëm yàlla ja deuxième jour mu jëm ñun daal xam troisième jour ñun mooy Cheikh Tidiane quatrième jour mooy Cheikh Ibrahima ma ñaar ba ñëwee defaan muy juróomi fan xam nañ ko juróomi fan xam nañ ko ñun suñu mbir yëpp xam-xam kenn mu ñëw trapeloo ay kii nag ay gars yi bind ay kii nag ci ay fooy rek naan nag non non loolu ay bind waaye benn bind rek loolu benn yàlla liggéey bu ko leer yàlla bu ko lay mooy lu laaxa am nawetu bi dan place wala chevaux